ñu ngi leen di nuyu yéen ñi seetaan Leral ne ah, ñu ngi fii nga xamante ne moom mooy Sénégal oriental ah, précisément fi nga xamante ne moom mooy Tambacounda bi ñooy Tamba nag fekk fi ay jafe-jafe fekk fi population boo xamante ne ci souffrance lañ nekk ci lëndëm lañ nekk ci marnaan lañ nekk ñu nekk ci situation boo xamante ni peu délicate eh, fii nag mooy quartier boo xamante ni mooy Saare Gileel eh, quartier bi nag mu ëmb li nga xamante ni mooy zone boo xamante ni dafa bëri population ba tax na am nañ fi lu toll ci ñaari bureau de vote donc capacité ñetti bureau de vote muy wane loo xamante ni daanaka capacité population bi ak nombre bi nga xamante ni moom moo fi euh, nekk ci nit alors ñoom it nag ñu am pour jafe-jafe yi euh, seen zone bi mu doon zone boo xamante ni daanaka occupation euh, anarchique moo fi nekk ñu daal di def li nga xamante ni moom mooy bornage yi mais ba léegi ñoom ñii nga xamante ni ñoom ñooy kilifa yi ci dëkk ak chef de famille yi daanaka lu ñu am mooy seen titre propriétaire ba léegi jotuñu ko te bu ñu jëmee ci autorité yi tamit ñi daal di fi am jafe-jafe wala bokk ñi am ay propos yoo xamante ne daanaka da leen di versé ba tax na il se sent un peu menacé ci zone bi nga xamante ni moom la ñu euh, dëkk ba tax na fii Leral TV def déplacement ñoo rencontré leen jox lañ kaddu ñu daal di ci antu ñu wax ñu li nga xamante ni qu'est-ce qu'il en est réellement mais quartier la boo xamante ni depuis daanaka 1960 euh, ak li ko weesu wala bokk 1962 sànc nañ ko fii euh, fi nga xamante ne moom mooy Tambacounda mu doon quartier boo xamante ni tout près de la ville la mais derrière ce quartier il y a xamante ni ay quartiers périphériques xamante ni ils sont mais aussi ñu bénéficier ci ndox ak électricité te ñoom ñu nekk daanaka au centre euh, du de la ville mais amuñu accès ci li nga xamante ne mooy eau potable amuñu accès ci li nga xamante ne mooy électricité ñu am problème mu poste de santé ñu bëri ay jafe-jafe mais quand même on va leur donner la parole ñu gën ñu éclaircir ci li nga xamante ne moom mooy seen jafe-jafe fii ci Tambacounda Saare Gileer lotissement moo jiitu lépp lotissement bi moo jiitu lépp te maleureusement ñun lu ñu fi daal dafa métti parce que dañoo ñëw bu fekkoon ne teguñu borne sax amul problème mais dañoo ñëw pour ne pas revenir euh, depuis depuis le départ dafa am benn maire bu fi nekkoon wuuri baa dafa ñëw tegal ñu ay borne de de suñuy laal teg borne bëtt suñuy néeg teg borne léegi dagg nañu koñ bi joxuñu kenn kenn xamul fu mu dëkk soo xamul fu nga dëkk mënoo tabax mënoo am courant mënoo am ndox kon loolu yëpp moo waral ñun tey tey ñuy yuux affaire lotissement bi parce que su fekkoon ni au moins lotissé wuñu ñu bàyyi ñu ni ñu toogee woon xëy na mën nañu trouver consensus ñu suñu biir ku nekk am fu muy jaar ku nekk am fu muy dëkk mais tey tey boo duggee si biir koñ bi benn jeunesse rek lañ lay defal fii parce que fii nii entrée bi la fii maanaam quartier bi yëpp jàppal ni li nga gis nii lii moo fi nekk lu ñu mën a présenter lu présentable ci ci dëkk bi lii moo nekk lu présentable ci dëkk bi mais boo duggee ci biir xëy na jafe-jafe lu ma lay wax ni yow mii di ko gisal sa bopp parce que amuñu yoon amuñu courant amuñu ndox loolu yëpp lan moo ñu ko tere mooy lotissement ñu nag dañoo am xaw ma malchance xaw ma bonne chance xaw ma nan parce que dañ ne Tamba titre foncier de l' état la titre foncier de l' état ñun ñëpp xam nañ ni mu tëddee mooy maire bi amul sañ-sañ ci suuf si mais ñu ñi nga xamante ni dañu nekk fii ay population xamuñu réalité yi à chaque élection maire yi ñooy ñëw di ñu nax su ngeen ma falee dañ leen di bornel noonu la ñu naxee ba ñu dagg fii yëpp teg ay born kii nag parce que depuis 2008 ñu ngi xeex mais chaque fois bu ñu demee ba ni ñu tegee bon dañu arrêté ñu ne non yéen amoo leen espace seen espace doyul bokkoo leen Tamba chaque jour ñu wax ñu beneen beneen beneen beneen beneen bu nga xamante ne xamatuñu xamatuñu fan la ñuy tee exactement. ñun lu ñu gën a merloo si bi mooy ñun moom nguuram bu ñu sàgganee ba moom lotissé wu ko attribué wuñ suñu kër kon ñun moom bu fi jógee ñun am nañ mille chance pour ñu raser Saare Giré nga xam ne kenn du fi dëkkati wala buñ ñu buubee fi ñu yóbbu ñu fële lamba bu ko mooy sorti Ndakaaru bi fële booy dem Ndakaaru loolu nag bu la ko kilifa waxee koo xam ne moo war a defar mu menacé la nooy def nga jël say matuwaay du ma leen wax nag yan service la lañ dem mais yàlla def na bañ jógee si borom dañoo dem si ay services yu compétent yoo xam ne ñoo xam wàllu suuf ñu jox ñu ay conseil teg ñu si ay techniques yu leer nañ si yooyu la ñuy dox nag ba yàlla defal ñu si tuuti ndam ba tey jii ñu mun koo tere moom en tant que maire ñun population bi tere ko ne du fi teg benn xeer foofu lañ sukkandiku parce que bu doon ñu nag moom dong moo ñëpp doole te bëri na pexe te na xaalis kon loolu du ñu xeex ak moom du ñu xucc ak moom mais dañuy dem si ñoo xam ne ñoo ko moom tamit doole te di ko surveiller si li muy doxalee nguuram pour ñu dem wekku suñu doole si ñooñu pour moom mu mun ñoo ñu mun ñoo aar aaral ñu suñu suuf si. man dëkk naa fii ça fait presque bientôt quinze ans hein même plus plus de quinze ans la. xam nga ñun bu ñu fi ñëwee boobu HLM moom moomoon fii yëpp dafa amoon euh, dafa amoon dafa amoon ay kayit yu wóor euh, moom moo ko moomoon. Euh, bu ñu ñëwee ñu jéem a fekk ñun du ñu ñëw rek dëkk bu ñu jëwee dëkk fekk ñoom du amoon ay titres fonciers yëpp finalement c' était très difficile c' était au temps de Sékou le maire Sékou Touré ñu nekk ci ñu nekk ci di def ay va ay ay ay pourparlers di di di nekk di ci xeex di xeex di xeex ba HLM ñoom ñu jox leen ñu ñu compenser leen 17 17 17 hectares. si gannaaw SPS ñu jox leen foofu 17 hectares ñu soog bàyyi ñu soog ñooy bàyyi dans une partie dans une partie de Sarijile foofu lu moomoon ñoom la plus grande partie mooy la partie qui est foofu yëpp mu ñëw 17 hectares. ñoom mënuñu ñëw di jël di raser ay kër jàmbur di ay terrain public la lu public dañuy xaar ñu def ci lu public mooy école mooy ay hopito mooy ay yoo xam ne espace public la loolu lañ ko bàyyee. mais mënuñu ñëw di raser ñoom ay kër di jël kër yooyu di ci def di ko jaay ay privé ñu naan loolu public la ndaxte ku nekk xamee ne lu public ak lu privé Tigo privé la ñoom mënuñu ñëw raser ay terrain jàmbur jël ko ne public la espace public la ñu jël ko jox ko benn privé te ba pare nit ñi yoruñu fi ay titre foncier ñoom ñoo defoon bornage borne boobu noonu bu ñu def boo sukkandikoo ci loolu si plan boobu génne ay espace public ba ñoom ñu am ñoom fit di ko jaay dina ne espace public la borne boobu noonu ñoom bu ñu sukkandikoo nañ sukkandikoo ci loolu jox ku nekk fii kayitu këram. amul fu ñu demul xeex bi yàgg na daw nañu guddi daw nañu bëccëg fépp fu ñu dem aussi ci ñu yaakaar ne bu ñu demee dinañu fajal suñuy rongoñ fëgg nañ sa bunt dugg nañu mais c'est toujours la même chose ñu ngi ci kawam dossier yi c'est un peu difficile à régler ñu ngi ci kawam. dinañ ko régler ba sa mandat jeex nga wàcc keneen ku ñëwaat la nga xamante ne nit ki moom ci la mu bëgg rek ko koy nax la ñuy naxee nag mooy bu ngeen ñu fale seen kayitu kër nañ ko toppatoo seen kayitu seen kayitu kër dinañ ci taxaw di ngeen am seen tiit seen seen i bornage ainsi de suite mais depuis boobu ba léegi tout va mal dara sottiwul comme bu ñu nee na borne yi baaxul kon looy laalee place publique jàmbur léegi mu ñëw si place publique boo nga xam ne suñu benn waajur baax bu nekkoon Allemagne un immigré bu ñuy wax Abdou Karim Sané moo ñu mayoon fii benn teen publique xam naa ne bu ñu jógee fii war nañu mën a yegg foofu ngeen mu grillagé lool ñu defal ñu ko jardin pour jigéen mun faa daan seen i doole bu ñu am fee seen i salade lu ñu a amee si bi sori ba léegi yàlla def na ko ku juróomi at juróom-benni at kii nag bu mu ñëwee di lesoon bi mu ne moom foofu lay ñëw si buntu jardin bi mu sampu fa antenne tigo ak benn euh, projet. teen bu nga xamante ni population bi yëpp foofu la ñuy naanee ten bu nga xamante ni benn jaamu yàlla moo ñu ko may yërëm ñu parce que dafa gis lu ñu sonn amuñu ndox jigéen ñi ay ay bidon la ñuy yéenu bidon di dox un deux kilomètres pour am ndox et pourtant et pourtant Tamba ba Tamba daj Sariguel moo gën a jege centre ville bi jógal fii quartier Tamba yëpp ñun ñoo gën a jege mairie. ñoo gën a jege préfecture ñoo gën a jege gouvernance ñoo gën a jege conseil départemental ñoo gën a jege lycée Mame Cheikh Mbaye ñoo gën a jege brigade de recherche ñoo gën a jege police ñoo gën a jege gendarmerie ñoo gën a jege tribunal loolu yëpp boo ko génnee ci dëkk bi lan mooy des. teen boo xam ne nit ñi foofu la ñuy rootee ñoom ñu ne ñoom dañuy day si buntu teen bi fii jël def fi antenne bàyyi population bi ñu ngi occupé fii anarchiquement bu ñuy jël fii di dagg di jox ay ay ay privé. balaa ñu koy def nañ yërëm population yi ñoom balaa lenn d' abord nañ xalaat def social ndaxte fi population bu fi dëkk yëpp au moins ñu ngi góorgóorlu di def lu ñu mën di liggéeyal Sénégal ndaxte ku fi liggéey si économie Sénégal lay dem ñu fi dëkk yëpp ay sénégalais lañ koo fi laaj carte mu indi ko koo fi laaj kayitam mu indi ko. les maires qui sont le problème c' était là où mettre maanaam ñu nekk si mbedd mi ak ñu nekk ñu nekk si euh, double du si bi am deux deux à trois personnes fu ñu leen mën a yóbbu je crois que je crois que y avait un état des lieux que le l'ancien maire avait fait mais finalement je crois que am na ñu ci ñu ah, bon xaw ma du ko mais en tout cas am na ñu ci dëkk bon fii aussi si 17 hectares yi si wetu euh, Sénélec foofu ce qui est sûr foofu ils ont morcelé cela foofu duñ ko morcelé carrément te foofu ñun si ñun la bokk duñ ko morcelé c'est-à-dire su fekkoon amoon na bonne volonté des des kii qui sont là de des, des, des, des, des euh, autorités, autorités, techniques voilà, du maire qui étaient là. Le problème de Sarguilé était arrangé depuis longtemps. Mais ce qui est barré, si nous avons finalement nous attribué à d'autres. Malgré tout ça, am ndox bu ñuy avons ça, nous avons se Est-ce que ça c'est acceptable en 2023 Maintenant, si vous pour revenir la monsieur le maire ñëw jël espace boobu noonu octroyé ko benn société de téléphonie bu ñuy wax Tigo à notre grande surprise dañoo xëy rek ñu ñu fekk ñu ngi gas bu ñu laajee ñu ne ah ouvrier lañu laajte ñu ne ñu ne ah ñun de liggéey dañ ñu fi indi nañu liggéey ñu laaj leen ñu wax leen lu ñu wax ñu ñëw ba si jarga ñu ne délégué de quartier ñu laaj ko kooku ne a ah, man de si dara ni ngeen ko déggee noonu laa ko déggee ñu ne mais quand même li parce que du ñu taxaw fi ñu seetaan ba ñi ñu bloqué fu nga xamante ni ñëpp fii la ñuy naanee parce que ndox moo yor dund avant tout bu ñu fa installé léegi tey tey antenne non seulement le prix ne sera plus accessible mais dinañu dëgër prix lu mu néew néew néew néew cent ménages téeméeri kër dinañu jóg te teen bi kenn dootu ci ci jot kon boobaa ñun fan la ñuy naanee. ça regrette va mal ça regrette tant pis benn boo nekkee jigéen. nekk en état de grossesse guddi pour nga am oto problème la bu tawee nga jógee marché ñëw boo amul 500 duñ la yóbbu loolu ci coono la bokk teen baa ngi ni suñu doom yi dañoo xëcc xëcc bay bëgg a dee ndox problème la man tey maa ngi ni ñeenti téeméer laa fay pour ñaari saas du ndox 30 bidon 2000 francs laa fay am nga loolu métti na ndox bi ñëwagul li ko indi rek ngay fay 2000 yaa ngi dégg amuñu yoon amuñu ndox nu courant. ngir yàlla war a sori kenn ku nekk nan la jox li nga moom ni bañ a amel kenn ku nekk sa morom àq ndax fii ay nit doo nga fi dëkk kenn ku nekk am nga fi sa droit kenn ku nekk am nga droit wax li la metti mais nan ko teg ci yoon kenn ku nekk nan nu jox li nu moom li nu moom mooy que nan njëkkati kayitu këri ni leen seen kayitu kër ngi ni yoon yaa ngi ni robinet ngi ni courant mi ngi nii man am naa courant mais sama morom li ñuy dund dafa metti ñaata nit lay chargé par jour maa ngi nii si suba ba tey aw ma ndox bi may dem dëj damaa xëppoo satala ndox mën a xaar ba ndox ñëw ma sangu sangoo gu ma suba ba tey même da ngay dem ba war a teg cin nga jóge massa teel mais problème ndox ngay am il fallait que nga dem ba 13 heures pour nga am ndox dafa métti bu nu demee bay jaay ndoxu teen ndoxu teen ni koy jaay ñaari bidon deux deux cent kii juróomi dam xam nga ni ko ñun dee nañu nan xool ni mu rafetee ni def ko ñun son nañu fii ay xale yu ndaw l'âge de 10 ans gis ni xëcc teen bi te xam nga ni teen bi du 2 mètres du loo am yaa ngi koy jëndee baag loo am yaa ngi koy jëndee bum jigéen ñi dañuy ëmb ba diis du root dañuy ëmb ba diis du puus man bi ma fi toxoo yàggul de waaye sama puus-puus a nga ne su ma gisul lu ma rootal puus-puus laay diri muy suba muy ngoon bot sa doom di root lan moo ko gën a metti boo amoon yoon sax mu gën a neex waaye yoon amul ngir yàlla war su na ne defal li ñu bëgg ñu jigéen ñi sonn nanu sonn nanu tam Saare Giré moom tampi on dans bon dans un quartier bi nga xamante ne la majeure partie de cette population c'est une population vraiment diminuée amuñu doole tey la grande dame wax na ko xëy na di gis koo xam ne dina am moyen tey wut puus-puusam di nga gis koo xam ne dina am moyen tey par exemple jënd ñaari siyo ba ñetti siyo wala benn bidon mais am na ñoo xam ne non pas amuñu ko tey da nga gis maire boo xamante ne tey day yenu këriñam dem jaayi pour mën a ñëw comprendre nga def ko si def ko ci këram. donc kooku bu fekkente ne tey da nga ko bëgg a jàppale da nga koy jàppale d'abord ci électricité pour que xale yi mun a am épanouissement électricité manque d'électricité déjà mooy manque de sécurité électricité foog nga am ko voirie yi aussi il faut mu am ñu dégager déjà voies yi bu ko defee ñu mun a am accès oto di dugg Jakarta di mun a dugg képp koo xam feebar nga ngay mun di évacuer sa malade à temps Parce que ici, on a constaté que depuis pratiquement des décennies, accouchement yi nga xamante ne tey tey ji ñu ngi am ci biir kër yi ñoo ëpp téeméeri junni yi am ci biir hôpital. moo tax ñu dem ci monsieur le ci préfet d'abord bu ñu demee ci préfet mu ne ñu a ah, comme que le concerné direct il est là dinaa leen bàyyi ngeen dem si monsieur le maire comme que concerné ngeen toog ak moom ngeen waxtaan ak moom lu mu leen tontu rek après si c'est nécessaire ngeen ñëwaat si man si tel n'est pas le cas ngeen dem feneen. ñu dem ci monsieur le maire ci tànk-tànk boobu noonu delluwuñu sax direct ci monsieur le yàlla def fekk ko foofu mais bi ñu demee nu mu ñu tontu moo ñu doyul parce que taxawul taxawaayu kilifa maanaam si tontaam bi du tontu kilifa tontu bi dafa nekk désespoir pour ñun parce que ñun tey tey quel que soit même bu dee ñun faluñu ko parce que moom moo ko waxal boppam mu ne man bi may campagne voté loo leen ma. ce n'est pas digne d'un dirigeant moom warul wax loolu du kaddu am mu ne ñun bu ñu bu may campagne voté ma waaw te man soxaluma deuxième manda benn manda lay wër ci la ñu toog mu wax ñu mu ne ñu ah Saare de yéen jàpp nekkoo leen si dara nekkoo leen si dara ñu ne ko waaw léegi yéen man maa ko posé question ma ne ko nee ngeen ni suñu suuf si doyul léegi yéen a ngi jël bayal yu fi nekk di ko jaay te ñun nee ñu. suuf si doyul loolu nan la mën a nekkee mu ne ah non non borne bi baax na suuf si doy na Saare Girel Tamba la bokk loolu yëpp gars yi dañ doon wax rek waaw parce que seen lotissement bi firndeel pour firndeel ni baax na am na 33 espace public te lépp lu fa espace public mairie moo ko moom te lu mairie bi moom am naa señ sañ def ci lu ma neex avec ou sans l'aval de la population. Hmm. ça c'est menaçant. ça c'est loolu moo ñu gën a tiital. Hmm. lu tax mu tiital ñu parce que non seulement. il est parvenu à savoir qu'il y a 33 espaces publics kon kon il les a déjà identifiés te am na espace public yu nga xamante ni ay borom kër ñoo fa dëkk kon kooku tey bu taxawee mu nee ñu espace public bu fi nekk am na sañ-sañ def ci lu ko neex même bu dee population bi àndu ci ñun dañuy tiit parce que fii ñoo fi dëkk suñuy mbokk ñoo fi dëkk ñun ñun fii la ñu am. nag tiitaange boobu noonu moo tax ñu jóg ñu yuuxu wàllu loolu moo waral coow li yëpp parce que dañ leen ne. considération bi ñu jox entreprise boobu ba dem xoolal ko bayal ñëw attribué ko bayal boobu dañoo bëgg ñu am la même considération envers la population ku nekk ñu ne la yow fu nga dëkk lii yow yaa ko moom dëkkal fii le reste c'est pour l'État su ñoo nekku ci nañ ci def lu leen neex mais ñu toog fii di seetaan chaque jour ñoom ñu ñëw di dagg bayal yi parce que fépp ñu waxoon ni zone de de recasement la dagg nañu lépp jaay nañ ko loolu tamit c'est pour votre information même si que dem nañu ci ay yeneen service nee nañu les maires n'ont pas le droit non pas le droit de toucher à la terre de Tambacounda mais dinaa leen xamal ni que fii tey mairie complice avec la complicité de certaines autorités dagg nañu Tamba yëpp jaay nañ ko man ci àll bi laa dëkk damay damay toog sama kër ma xool deux kilomètres ci kanam dagg nañ ko jaay dugal fi ndox dugal fa courant pourtant y a personne ñun ñu ngi fii zéro mètre de la commune amuñu ndox amuñu courant su pour lan parce que ñun dañoo dëkk fii xëjuñu fii bu ñu ko borné amuñu avant amuloo avantage quand même jusqu'à quand ñun ay sénégalais lañu loi du Sénégal moo ñu autorisé képp ku fi juddoo nga nekk sénégalais am nga droit am kër kon ñun que que que cette que cette suuf si état moom koyo yoo préfet moom ko yoo maire moom koyo Sédhiou Malem wala feneen moom ko yoo ñun suñu kër dong la ñu laajte parce que ay sénégalais lañu te suuf si Sénégal la nekk. toujours ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi bootu seen gannaaw rek pour di ñaan di ñaan comme ça ñu jéem a waxtaan ak avec le maire de Sédhiou Malem là. parce que ya a y' a ce qu'on intercommunalité am na inter ce qu'on appelle intercommunalité ah su fekkee ni fii dafa xat normal le maire de de Sinthiou mën na la mën na la mën na la jox une partie boo xam ni au moins dafa mën a un site boo xam ni daa mën a caser foofu ay nit yaa ce qu'on leen communalité parce que soo euh, acte de la décentralisation acte trois ah kii bi voté nu ko assemblée boo xam ne Tamba fu ci nekk dafa war a allonger dix kilomètres mais c' est pas encore signé par le par le président de la république signé comme maanaam kii def communication bi kenn defagu ko ah y' a y' a y' a tout ça ah, kon loolu su amoon kon le problème ne pas se mais léegi. waxtaan ak euh, les le maire qui est là euh, les gens du les techniques les les services techniques nu ñu jéem waxtaan ak waa Sinthiou Malem pour au cas ñoom dund léegi euh, kii wu kii wu dossier Tamba bi dossier Sinthiou Malem bi pardon pardon dossier Sinthiou Malem bi dañ koy yóbbu pour valider ko à Dakar suñ ko valider ba noppi su ñëwee suñu waxtaan ak kii wu Sinthiou Malem normalement suñ fa amee ay kii le problème va s'arranger normalement mais on a on a l'espoir ñoo ngi boot si ñoom si ñoom rek. Comme vous le voyez, Beléguier, euh, Nyungi euh, Borou Tibis, 19h euh, pratiquement dans cette zone, dans ce quartier de Saretilé, Gilel, Gilel, du moins. Mais Disney, Linga Hamantene, le noir total Bifinek. Disney, Linga Hamantene, environnement, mais nous nous dans insécurité, la nuit d'Undu, Dignen Senkadou, ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo dëkk fii rawatina jigéen ñi fii ma toog nag mooy teen teen nag gëj nañ koo gis boo demee ci yeneen zone yi ci Sénégal mais boo ñëwee fii di nga fi fekk jigéen ñi nga xamante ni dañuy root teen teen nag fii daanaka c'est client da ngay génnee xaalis nga doog a am ndox da ngay génnee xaalis pour mën a am euh, li nga xamante ni moom mooy eau potable alors muy loo xamante ni au vingt et unième siècle comme ni ñu ko waxee muy lu déplorable ci ñi nga xamante ni mooy askan bi euh, donc a root i euh, ndox ak seen i bidon alors au delà de cela aussi les femmes dégg ngeen li nga xamante ne la wax mooy problème hôpitaux yi ak li nga xamante ni mooy problème d'évacuation parce que jaune bi bu fekkente ne jigeen dafa nekk ci état wala bu nekk mu nekk ci situation daanaka taxi du fi nangu dugg rawatina nawet euh, donc muy loo xamante ni ñoom dañ koy déplorer mais li nga xamante ni mooy euh, le cœur de leur problème seen titre propriétaire ci jaune bi daal di leen ko euh, jox fii nga xamante ne mu saari gireel ndax lotissement bi soxla nañ ko lool te autorités yi booba léegi dafa mel ni dañ leen tax xamlu ñoo ngi sakku daal ci ñi nga xamante ne ñooy nguur gi ak ñi nga xamante ne ñooy les autorités locales daal leen may li nga xamante ni moom mooy seen titre futur propriétaire fii ci Saara Gileel ñu am lotissement comme ñëpp fii ci Tambacounda ndax ils sont à tout près euh, de la ville de Tambacounda merci beaucoup c'était Leral TV à Tambacounda on sera dans d'autres zones et dans d'autres régions pour vous faire part des difficultés des populations euh, du Sénégal rawatina fi nga xamante ne mooy le Sénégal oriental merci beaucoup à bientôt